Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum Sénégal maa ngi leen di nuyu waa tey dafa am benn affaire boo xam ne dafa ma jaaxal damaa am benn xarit boo xam ne jigéen la. moom daal nee na jeune léegi yi seen doxaan moom wóolootu leen moom daal kuy takk jabar lay wër ma ne ko ah bon mu ne ma waaw ko ah yàlla baax na mu toog benn ibaadu ñëw mu ne kii comme ibaadu xëy na peut-être day takk ibaadu bi jël ko commencé dund man daal dama toog benn jour rek mu ñëw ne ma dafa jaaxle ma ne ko jaaxle lan mooy sa problème mu ne man jëkkër laa doon wër benn ibaadu doxaan ma nangu waaye li ma si jaaxal durant trois mois yi ñuy génn yëpp xare batar la may nettali man ko comment mu ne durant trois mois xare batar rek la koy expliqué ba léegi trois mois yi xare batar bi jeexul man ko ah bëgg nga mu ne ma ne ko mu ñëw xëy na bu jeexee xare boobu la lay yóbbu. <laughs> non mais Pape. Mm-hmm. xam nga tey lan moo ma taalee. non gis nga super bi ma duggoon. Mm-hmm. coow lu ci am. mbaa benn waay daal bu moo ci nekk bu mën a fenn waa ji topp non Macky Sall couvre-feu bi nangam sangam lu ne mu wax ko. Mhm. oto bi ñëw ba fii nii géej police géej waay. mais defal naa boo dee wax nag si seet yàlla tàmm nga saa boo indi euh, bu heure añ jotee nga indil ma añ bu heure reer jotee nga indil ma reer instant bi njagonal jar na waxal waxal te yàlla. non pas. ndax ku la xàppan xaaral mu ndaw la. xaw ma lan lañ koy xaw ma. yaa ngi nii dèjà li ngay wax xamoo ko. waaw waxal waxal waxal waxal waxal ma dégg waxal ma dégg. waa ji nekk si oto super bi. naan Macky Sall nangam Macky Sall nii Macky Sall na génn ne mu wax ko. tay mu dee. oto bi ñëw ba rond point police Guédiawaye mooy station bi. Hmm. war a tourner wala ñëw police Guédiawaye. ndakate am na ku nekk ci biir koo xam ne nii policier la si biir la nekk yor kàttan. <laughs> génne kàttan naa ko ne ko eh, na nga def. nga ne Macky naa nga sax yow yaa nekk fii di saaga Macky Sall. saa mu génnee carte ban ko ne ko c'est la police mu ne chauffeur bi tournel dugalal oto bi biir police ngay waxee foofu noonu. mu ne ko déet jël oto bi di dugg man damay fen rek de. <laughs> <laughs> nga jàpp yow waxoo waxoo woon loolu. man su ma ko waxoon di ma gis fii. ah yow eh. Pa saaga Macky Sall de Sassane ah, man Kalle ah, wax la man lu ma gis. benn jaaykat mooy ñoon di jaay ah, parfum mboot yi waaw ak ah, par ak kii ah, non ñi rey mbóot ah, rey kañe. waaw moo mu ni ndoxuli njaan. waaw maraajo. Mhm. vite fait. Mhm. parce mbóot am na. waaw parce que nu jënax añ am na. Mhm. daal ne day rey lépp luy raam ci seen teg la fan bi di génn. <laughs> fi mu day raw day rey lépp la fa jujum ni ko boo si delloo am a kakaataan ak <laughs> maa leen maa leen di xàggale ah bu ñuy jaay na ni c'est pas kottu la fay nag ah lay kottu la fay ah mu am am na sama benn nijaay de moom waaw hmm. ah, mus na di xeex ak lafañ bi Mm-hmm. lafañ ñoom ñaar ñuy saagante lafañ bi ni ko da xam ne aw mooy tànk rek waaye su ma woon tànk rek sama nijaay bi daan ni groupe supp daan ko andi lafañ naa comme yow <laughs> ñoom ñaar <laughs> ñoom ñaar ñi nar a song xeex maa leen atte jour boobu maa leen atte loolu dafay bëri ah, ah i loolu dafay bëri na waar ah, dana mel ni nag ah, sàcckat bi ñëwoon mm-hmm. ah dugg kër loo bay mm-hmm. ah ndeysaan oh mbaa ne coronavirus bi yow xaaral bi mu ñëwee. dëkk bi lépp ay sàcc la. dëkk bi waaw. mbaa bi Sénégal. ah, ah da ngay Sénégal ah, dëkk bi waay. waaw tey Jof yor foofu. Ah, kër gi mu dal. ay loobe la. ñun ko ah sëñ fii dafa bëri ay sàcc. te hmm. man te ñun kat ay jigéen na fi dëkk suñu jëkkër yëpp ña sa àll ba di yàq. Hmm. ah mu ni jox leen ma kuur. ma fanaanoo moom ba sàcc dugg si kër gi tey. moom sàcc bi si boobu. moom ma waa ji mu dem ah, loo bay dem dindi kii euh, euh, njur njural njural simin bi. Mhm. jox ko mu fanaan. Mhm. Ah, waa ji daal moo fanaan ba ay quatre yu trois heures du matin. Mhm. yëkkati tànk bi nekkati moom day gént mu yëkkati tànk rek teg ab sàcc. tànk bi si boppam tànk bi la yëkkati. naka day gént teg ab sàcc. jékki-jékki lamb lamb ah, kuur gi ba mu jat yat gis nga bi dafa jékki-jékki rek nu ko tër sa tànk bi daal di sàcc sàcc gars yi ñëw ñu ne ko ana sàcc mu ne di aw na nële sàcc bi xëy suba ni koy wóondee kii sàcc bi di raam ñu ko lii nag mu ne su ma amee ñett fan sama tànk bi da koy yëngal naka da boobu dëdal jëndi billaay bi ah pap pap pap pap pap ay Pape nag yow yow tamit. ah, ah, ah man ah man lu ma lu ma fekk la ah lu ma fekk la yow. nit gisee tànkam di ko teg saa ci man Pape nag yow tamit. Ah, waaw kooku noonu la def kooku noonu la def. non non noonu la def man naa fi mu ah baax na daal. baax na Pape man waxoon nañ ma am na lu lay wax le waaye maa koy bëgg gëm de. xam nga nag moo tax nag man ak yow suñu ànd di neex quoi nit day wax dëggam te ma fekk ko jëkkëral mu fekk ma fa nga naan ma ay nit ay. man histoire bi ma bi ma gis moo gën a garaaw boobu. waaw ah, dégg li ma wax. lay wax rek seet yàlla xam nga léegi-léegi laa la wax police Guédiawaye. Hmm. génn ma fa am na beneen coow bu ma fa gisaat. ci biir police ci biir police bi. moytu ñu jële la fi sax. benn ndaw si jigéen moo fa ànd ak benn waay. Hmm. ñëw waaw ñaa ñii nii ñu woo leen waaw ñii lan la coow li lan la mu ne kii nii man damay encaissé. nee moom day tëb di fayeeku maanaam si si rafetal. day tëb ah. di fayeeku. caga la ne caga. day tëb di fayeeku kay jeexal na wax. ah, ah caga la waaw. fa waa daa tëdd ak moom mm-hmm. bañ a fay. est que loolu kéemaan la de. commissaire bi ne ko ah bon yow kii li mu wax dëgg la mu ne waa li mu wax dëgg la xaalis baa ngi nii sama poos ñun dañoo waxaale woon su ma tëddee ak moom fay ko waaye damaa pareegul pareegoo ko ah mu ne ñett lañu waxante woon te benn laa léegi ni ñu koy àttee nag moom a jaaxal moom ma fi fekk ah! eh. lépp di përi la xee boobu la xee boobu nag maa waroon nekk commissaire bi nag <laughs> kon noo ko ma àtte ko rek ah ni waaj yaa tooñ tooñ ko ba pare ndax ne ndaw si eh, eh, <laughs> nag ah, ah, mooy waaj mhm. day continuer ñetti fay wala ñu xool ñaata la waroon fay ñu xaaj ko ñetti parti comme benn la am. ñu jox ndaw si benn waaye nag waa ji bëgg a daanu. <laughs> tamit bëgg na noo daan. <laughs>